mbokk yi jaajëfal na leen bu baax a baax a baax ñu ngi jëm bis bi nga xamante ne bii moom mooy le 11 février fële ci arène nationale Jufi production tëgg ko defoon ko le 10 mais léegi daf ko yóbbu ba le incha allah foofu ci arène nationale diggante huit fee mooy grand combat ba ak Cheikh Bary mais combat préliminaire ya nekk ci suuf nee naa la yëpp ay grand la ñu seet si ki nga xamante ne bii moom mooy caatu tund bi war daje ak ki nga xamante ne mooy caatu mokkal. di combat xele waaye di combat espoir di combat ba nga xamante ne bi dina bokk ci combat bi dàq ci journée bi caat ma bàyyi la nga nuyoo ñu dugg ci biir liggéey bi aousubillahi mina seytaan rahim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di nuyu ñu fi toog ñëpp samay gaay aw seen fay waa ñu fi toog ñëpp ñaanal ñoom albarka mi yal na ko yàlla may ndam di nuyu sama waa kon ñëpp maa ngi leen di bëggee ba sëñ ba booy ndaw yi waa Pouce Dalbo ak grand frère yi fi teew yëpp maa leen di nuyu dana wax ni awma seen fay bilaahi maa ngi nuyu samay grand frère di nuyu ñi may jàppale ci combat bi di nuyu sama copain rek ak gaay fii ñoom Omar gaay yëpp daal. maa leen sëgg di xool sama cam sama caméraman. dëgg gaay yëpp daal maa leen di bëggee yaa ma gën a lim ñëpp quoi comprendre nga. mais ku ma tudd sa rek ma lay nuyu. le 11 ñëw na de. ah le ñëw na kay dëgg la le 11 na dem jëliwaat ko rek incha allah ah. barke sëñ Baama. adversaire bi xam nga ko bu baax. kan kooku soxla ma ko xam sax. Lala Seck ak moom arbitre prip ma jëli ko duma ko daan ko ñëw ñibbi si waat sama koñ toog. jël avance am koo xam. sox waa yow si entraînement laa ko teg ak ci gëm sama boobu fa ko teg kooku du du matsi quoi kon boog. du lan du match. combat moom yow moom du match. barki borom daaru ku ko mun. entraînement la kon. dëggoo li ma la ku ko mën. wala réveil musculaire la ni ko Serigne lépp la lépp la la. barki sëñ Bama maa ko mën mën man ñii yabu ma leen ñii yabu ma man bëreewu ma ba léegi bëreegu ma boo xamante ni combat bu yomb la. combat yi ma bëre yëpp combat yi métti yi nga bëre yëpp nag bii moo ci gën a bii moo ciy gën a métti parce que adversaire bi adversaire de taille la moo mu neex ma ne ma de da mokk rumbux barki alxuraanu karim bu arbitre sifflé ko daan ko fu munta taxaw ci géew bi loolu amul saawa barki sëñ Bamba du combat nee na di nga mokk de dinaa mokk waa baaba arbitre sifflé génn ci géew bi rek bu arbitre génnee ci suñ diggante barki alxuraanu karim bu dee góor nga rek taxawal caatu mokkal dinaa la duma dinaa dinaa pan kaw barki sëñ Bamba du combat bul sax sonn gaan man ñii dañ ma yaakaar de sonn si man de. gars yi moom wax dëgg yàlla. sonn ma de. jàmbaar ma yaakaar. ñii dañ ma yaakaar sonn si man de. kon tey jii du ñoom xam nga ñoom xam nga li ñuy xaar. ak fayda barki xam naa bu baax li ñuy xaar ci ma li ma leen jaral xam naa ko bu baax kon tey jii du ma fa dem di wone benn ñàkk fayda hmm? ku ma bëril ku munta toll maanaam man booy man du mën a caatu mokkal yi sax. xëy na deuxième combat rek moo ñu boole mais su ma génnee ci combat bi di nga xam lu ma lay wax man du maag booy booyi booy yi mënuñu tus si man déggoo ma kooku kooku su teewoon sama tànk sax bu ma waroon ndomb sax du ma daan. soo ko mayoon wër ndomb. billaa walaay du ma daan. barki borom daaru su ma ko mayoon wër ndomb sax du ma mënu ma yëngal maanaam ay booy yi dañ maa mën a booy bu ñu ma mënee yëngal kon ma toog waaye kon ma bañ a bëree barki sëñ Bamba du combat. bu ma génnee ci combat bi ma bëreeti genre booy yi nii. mais lu tax nga tuddee sa bopp caatu tund ba. caatu tund ba parce que fu ma dëkk tund ba la. tund ba la man sama gox laay ndamoo. ma dama tuddee sama bopp caatu tund ba. waroon naa jël yeneen tur yeneen ak yeneen. mais tund ba laa dëkk dama bëgg fu ma dem ñu ma xool di gis si di gis si man tund ba. image tund bi deretu tund ba mooy daw sama yaram. Ah, mais loolu foofu ma déggoo ma te combat bi la ñuy xam ne ba léegi gisaguñ sama bëre. ci combat bi bu soobee yàlla la ñuy xam kamooy mooy caatu tudd ba dëgg bu arbitre sifflé balaa muy wàccee loxom ma dox ci kawam duma ko daan ko toog ci kawam. mais mais mais caat caat loolu loolu mbër yu bëri dama leen di taalal micro loolu la ñuy wax mais arbitre day soufflé ñu nekk fay xaan-xaane di calculer di xaar adversaire ba mais mais mais ba doo bokk ci ñooñu. non man du ma mbër yooyu man képp ku ma xam ku ma xam dëgg xam na ni sama bëre man musuma bëre nit mu songu ma xaw ma loolu sax. ay taxaw di yoot yi yëfu ñàkk fayra may taxaw li ma wax fii nii yëpp dem di taxaw di yoot taxaw di layam loolu moo man xaw ma yooyu de barki axuraan bu arbitre sifflé déggoo li ma la de ma dox ci koom maay maanaam waaye booy booy mooy wax rek maanaam ndànk rek ma ko teewee bés bu ñuy roofante dina xam ne ay taay ay lii yëpp amul sens. nee moo la sut moo la ëpp doole te bu la dina la tànc ba nga xam sa bopp. kat moo kooku <laughs> yow gëm nga ko yow. ay waxam la de. dama yow yow laay laaj ndax la yow laaj ndax yow gëm nga yow gëm nga loolu yow waaw ay moo ko wax de pourquoi moo parce que champion la war mën a tànc kan kooku tànc ma kooku su ma tàncee kon fan laa jëm si làmb ah, kooku ñi ko gën a tàng fop ñoo nekk ci kanam kon xooluma sax kooku su ma mënul kooku su ma tàncee kon maanaam naa toog ma xam ne man du ma mbër booy bi passé moo gën a metti fop te bu ko téewee benn voyage laa ko def comprendre nga kii déggoo ma ne caaru mokkal doo grain ci bon bi booy laa lay jox ñu tux la barki sëñ Bamba su ma la teewee di xam ne lépp dëgg naa la duma daan la man booy yooyu noonu di toog fii di wax ay di dem ba foofu noonu di seral de man su arbitre sifflé ma jëli la duma la daan la du ma sa morom bu ndaw laa 2003 laa juddu xale bu tuuti laa bés bu arbitre sifflé barki alxuraan di nga booy di bagaar barki sëñ Bamba di xeex dina bëre booboo nga teel a xam loolu di nga xeex di nga bëri loolu ma maa la wax caatu mokkal. mais mais mais yow caatu caatu caatu tund ba yow nga xeex ak caatu mokkal loolu wóor na ci yow. kan la tiimu yow kooku may nokku ñi ko ëpp fop nga naan ma xeex. man dama xeex ba mu màgg kooku ñi ko ëpp foofu dama leen di nokku nga naan ma ay xeex kooku du ñu xeex sax ma koy nokku. Eh. ba sëñ Bamba. du ma moromam de man. koy yooyu ah, su ma ko téye dama koy nokku laa lay wax ni du combat. caatu dama ko nokku. mais est ay combat. barki alxur kooku benn combat la dafa ko fi tus benn combat la bëre muy toog fii doon te benn cigili booy boo xamante ni suñu booy sax buñ leen tee buñ teewee booy boo noonu laa ko waroon jot dan. gan kan la bëre. booy boobu booy yoof boobu xaw ma cité bu reefaan xaw ma lan booy boobu booy sama booy bi rek moo mun barki sëñ Bamba kooku mbër la mooy soog a am combat moom si boppam caatu mbokkal ci boppam moo la gën a xam ni am na combat barki alxuraan wax jaa fi nekk rek moom moo la gën a xam ni fop am na combat te bu arbitre sifflé dina xam ni am na combat. billaa wala. war bu soufflé mu ne la kaa ñu mu ne ma waaye du ci wootee man maa ko ciy woo nga naan moom moom moom. waay yow gaan yéen da ngeen baax rek. doo xaar mu woo la ci barki alxuraanu karim war bu soufflé kuur yi kuur yi dinañ takkaar naa si. déggoo ma de. kaa ñu xeex moo ma gënal kaa ñu lekk barki Ba man dama bëgg man li may wax nii. li wax nii xam ni carrément man li ma wax nii lu ma gëm yaa ngi fii damay bañ ñu yóbbu la faar barki Seydou bee passé waxoon nañ ko de bind len lépp déggoo ma de bind leen lépp xalaat le douze lundi le douze image yi nekk fi dim non lundi xam nga làmb ji dimanche la lundi le douze làmb ji jàll vaar yi daw ñu naan booy bee fi waxoon ni déggoo li ma la wax de da koy sóor vaar leen lépp nga naan maay ma ne ma tapperloo man ragal ma fu ma jëm de xale bu ndaw laa lu nekk sama kanam dama koy fagas dem sama yoon barki sëñ Baama li nekk sama kanam xajum waay ko sama alir xajul ci moom billaa wallaay waaxum gaynde xajul ci muus te gaynde laa ci kawam parce que sëñ baama gaynde laa man gaa yi gaa yi gaa yi nekk sama ginnaaw nii mooy lool de ñii dinañ tax ma rayante de sama bakkan saa bu fay des sama bakkan dina fa des waaye ndam li dina ñëw soobee yàlla mais looy wax looy wax looy wax waa Liberté 6 fi nga xamante ne bii fi nga dëkk ci côté mobilisation. sa diggante ak Mor Diouf. côté mobilisation non loolu loolu loolu moom combat bi passé gis na nu mu demee la mu tegal ma combat bi passé combat bi nii amagul sax un mois mu ñëw tegalaatal ma combat. sëgg waaw. waaw kay dafa dafa tàpp. yaa sa am ngeen ragal man man nit ku yaru ma rek ragal du dem bëre ji. ragal ragal ragal di dem su ma ragaloon amaana damay. mooy sa adversaire ngay waxal sa bi moom ngay dama leen di waxal carrément su ma nekkoon ragal du ma nekk fii sax di naan dem. mi ngi noonu ragal laa mi ngi noonu nag grand bi wax na leen ko ragal laa côté mobilisation moom Mor Diouf jaru saa may wax moom xam na bu baax bolog la ma joxoon bolog yi ma joxoon lépp jeex na woo naa ko ba moom xam na loolu noonu saa ñun loolu ragaluñ ko lu tax mu tëggal ma même pas un mois mu tëggalaatal ma combat xëy na da cee gis boppam comprendre nga bu ci gisuloon boppam amaana du ma tëggalaatal te combat bi nii mooy ëpp mbooloo fop barki seen Bamba deuxième combat la sama combat bay loolu noonu premier combat la te gis nga booy ñëw nañ nice te combat bi ci lay dàkkee xale bu ndaw la li ma leen di daal xoolal buñ tiit bu ñu ragal combat bi prip dib la combat bi du am deux minutes barki sëñ Bamba prip dib la laa koy yóbbante na entraîné na entraîné te préparé bagaar na préparé bagaar te na ne dina bagaar barki sëñ Bamba combat dina bagaar force mu mu koy neex mu koy nagari nañ xeex. nee nañ nen hmm, bon ñaari xale fu ñu taxawee ñu fay leen xaalis la moo tax ñu fay ñu. jeex na kon nañ njëkkee ci xeex bi mujjee ci bëre bi te bu ñu xeexee bu moytul dina wàcc. dëggoo li ma la wax de barke sëñ bu ñu xeexee bu dina wàcc de. ayca ñu bàyyi la nga woote woo mbokk yi nga xamante ne bii ñoo la woon a jàppale ci combat bi. maa ngi woo sama waa koñ maa ngi ciy woo Liberté 6 bi zone Sicap bi ñëpp maa leen ciy woo. di ci jiital sama koñ tund ba di ci woo ñoom manam dem ñoo ngi leen ciy woo ñoom tam Soxna ñoom ñoom ñoo ngi leen ciy woo ci combat bi comme bee passé ni ci jàppee woon ñu jàppaatee si mais mayal sama gars yi ñu sànni ci ay kaddu waa mënul ñaaka sama gars yi fii nii may leen ñu sànni ci ay ñaar rek ñaar rek ayca ñaar rek ku ci nekk ayca kaay ni toogal Baye Fall yan ci biti ngeen di toog bërewu leen bërewaalewu leen te mbër mi di ko di ko di ko buux rek ci kaw adversaire waa dëgg la mbër bi dañ kaa wóolu. wóolu ngeen ko. nañ ko ak doole. xoolal caméra bi nañ ko ak doole. te jour bi ñu ko téye dina xam ne lépp dëgg la. barki Seydina Mohamed. billaa wallaay taalaay kii suñ ko wóolu woon. si ginnaawam bàyyi suñu lépp ñëw toog fii nii bàyyi suñu liggéey ak lépp. ñëw toog fii nii di waxtaan ak moom. billaa wallaay taalaay. buñ ko tàppee de wër na Serigne Bamba loolu mu wax rek lu nekk si kanamam da koy faxas mu ñëw si ginnaaw mu xoolaat leneen. le 11 du ngeen koy waaje le dem rek ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñu bëre daan incha allahu rabbi duma ko dumay metti ñibbi si suñu koñ fii nii. ayca rendez-vous le 11. rendez-vous le 11 di ñaanal suñu waajur yëpp ñu nekk fii yàlla may leen jàmm di ko ñaana combat bi yàlla may ko ndam bu sedd guy ñu ñibbi si féete suñu victoire si barke Seydina Mohamed. ayca jaajëf jaajëf ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca lu nekk ci gémmiñ gi. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu Liberté 6 xam nga waaw di naan waa boobi xale la quoi. waaw te dafa pare si côté yëpp waaw caatu mokkal moom kooku du Thiès xam nga kooku arbitre moo ñuy tëree zibile arbitre bu génnee seen diggante rek ñu zibile kooku saa da koy linjaa ci biir supporters yi ñu linjaa leen ci biti incha allah kooku xolal fii ngeen di ñëwaat le 11. le 11 fii ngeen di ñëwaat incha allahu rabi booy bi dina ko duma dina ko daan. yow foo toll. non maa ngi bu baax maa ngi waaj le vingt incha allah waaw yàlla may ma ndam incha allah maa ngi ñëpp jàmm waaw kontaan naa si bu baax bilaay di ñaanal ñëpp jàmm merci. jaajëf kooku mooy caatu Kairé Junior ay ca Baye Fall toogal toogal macha allah moom tamit yaakaar naa ci staffu ki nga xamante ne bii. moom mooy caatu tund ba la bokk moom tamit ñu bàyyi ko mu sànni ñaari kàddu rek ci combat bi le 11 nu ngeen koy waajal. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku si nekk sa tur sa sant di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw di sant yàlla bu baax waaw di ñaanal mbër bi jàmm di ñaanal adversaire jàmm bés bu ñu dem yàlla ji suturaal ñu si may si ndam bu seddu guy ñu demee ko si non violence ñibbi si non violence lépp ñu teg ko si yoon di ñaanal tamit ñu caabi féete ginnaaw caabi féete kanam. comprendre nga ñëpp ñu fi li nga xamante ni di masaw tamit waa xaar yàlla bu baax a baax baal si lu leen dal tamit métti tiis bu leen dal tamit surtout loolu tamit mhm. ndax leen lu nekk a am àpp daal waaw di ñaanal nag tamit moom caatu tund ba yàlla suturaal ñu bu baax yàlla may ko ndam ndax ku baax la xale bu am yar la jox na ñëpp cër waaw amaana tamit nag yoonu ndaw du gaaw mais leen kese lañ koy sant adversaire am na ko cër bu moom comprendre nga ñu dem si jàmm. caat nan la dëkk ak yéen biir koñ bi. waaw caat moom bu ñu nekkee di wax si loolu sax amaana duñ fi jóge waaw mais dañ si waslu ak rek caat moom ku baax la caat ku baax la jox na ñëpp cër du mag du xale ñëpp kenn ku si nekk moom sa cër bu nga moom jox na la ko dañ koy ñaanal rek yàlla dolli ko sutura waaw bàyyi ko ba si kanam waaw. lo incha allahu rabbi waaw boobu moom ne ko ñëpp xaar moom incha allahu rabbi jaajëf ayca léegi kàddu gu mujj ak ñan woo ci combat bi. man de combat gaan waa Diourbel maa leen di sant di leen gërëm ñoom Heuze waa Diourbel maa leen di nuyu bu baax a di leen sant di leen gërëm déggoo ma ne Diourbel <laughs> man Diourbel laa dëgg nga naa. Diourbel fan. Diourbel Mbudaay. Eh, maa leen di nuyu waa Mboudaay barki seen daan Mohamed ñoom Tidiane maa leen ñoom Tidiane ñoom maa leen di bëggal ñoom ñoom ñoom guy ñoom ñoom Doudou Sané ñoom Doudou Sané ñoom ñëpp maa leen di nuyu bu baax barki seen jàpp nañ jàpp nañ ci combat bu baax a baax sama combat bi passé jàpp nañ ci Doudou Sané foofu ñu ngi koy wutal adversaire Diourbel ba léegi mënta am adversaire mënta adversaire dëgg la parce que ndaanaan la gars moom boo nekkee champion gars dañ dañ lay xaw a ruux yaa a xam mais maa ngi nuyu sama waa koñ. ñoom nag bi junior xam nga. ñoom nag nag bi passé moo daan. moo daan amul frais dëgg ma ñoom ñëpp waa dëgg la yow moom baay mooy loolu noonu. waaw mais foofu sama dëgg la foofu mooy sama feef. loolu moom dëgg la mais maa ngi woo borom borom lekk waa waa waa restaurant lekk comptoir. ñooñu maa leen di nuyu bu baax ay jàmbaar lañ grand zig zig maa lay nuyu bu baax ak sama grand bi Baye Fall bi maa leen nuyu ñoom ñëpp barke yàlla ay restaurant lekk kaca ñoom ñëpp maa leen nuyu ñooy jàpp si combat bu baax a di leen wax ni combat bi du yomb dem jëli la incha allah barki Seydina Mohamed prib dib la bu arbitre sifflé ma duma ko daan ko damay pan ci kawam barki alxuraanu karim bu soobee yàlla duma foog ne benn ñàkk fayda buñ bu ñu ragal ci combat bi su ma su arbitre rek dinaa ko fek fu mu mënta nekk duma ko daan ko maa ma sama gannaaw bi mu sànni si ay kaddu waay mais kii rek kii rek jàpp si rek baay ki sama gannaaw la waaw Baye Fall ayca ayca toogal Baye Fall staff bee am doole ay ca ñaari kàddu rek. waaw salaam salaam di nuyu ñëpp. salaam salaam ñoo ngi nuyu ñëpp. di nuyu ñu caabi féete ginnaaw yàlla teggi leen ko ci nu gën a gaawee. ci mu gën a gaawee. waaw mbër bi ñu war a bëreel dañ ko war a dañ koy xamal ni. Jakarta du moromu saret. Jakarta du moromu saret. bu ci gën a gaaw. Jakarta moo gën a gaaw. bu ci gën a dëgër. Jakarta moo gën a dëgër saret Jakarta boo conseil 2000 da ngay dem fi ba Thiès ñibbi siwaat Jakarta du moromu saret. kon ne ko kon Jakarta du moromu saret. kon booy bi caatu mooloo ne ko arrêté. caatu mokkal de nee na seen bërmi kooku day arrêté. ay doomu pël lañ. bu ñu lekkee benn ñaar la ñuy fay. ñaama góor a yoba didi. kon nag xam ne xoolal 2-0 la. booy bi ay combat tapet du tapet tapet dëkku fi dañuy ñëw jàll xuus jàll booy bi du mënuñoo téye ndax xam lool bu baax nag. jaajëf waaw jaajëf. ayca mi ngi noonu mbokk yi rendez-vous bu ci yàlla àndee incha allah le 11 fële ca arène nationale. sama gars yi ana waa ana ana waa waa waa kër caatu tund ba. ana mafia bi. ana mafia bi. ngeen di daw rek. amul arrêt. sama gaay wala 11 inshallah